ancien champion Moussa Diop mbër ziar naa waaw waa a info maa leen di fay di sant yàlla julli ci yonent bi sant sañu ñaari waajur di sant parcelle bi yëpp rawatina mbooloo bi fi teew yëpp di ñaanal Garga Mbossé dimanche incha allah yàlla na ko yàlla suñu borom may ndam. ngeen ngeen jëm ci un combat capital bi nga ñëwee gis mbooloo mi ni ba yëg-yëg nga waaw loolu motivation la parce que Garga war na miin lii yàgg na gis mboolaa di ñëw ci kawam tey nag combat bi dañ dañ ko soxla euh, yalla dafa defal mu genn yalla may ko defet laay Pythagore nonu Tafa mbeur nonu ak dam sen te ñooñu ay element lañ biir parcel kon Garga xam liko war ci combat bi motax parcel ñep ñep ñu ngi ci ginnaawam vraiment ñep jappalé nañ ko li ci dess nag moy yalla suñu borom yalla nañu yalla suñu borom may ndam. muy bëreeg mbeur mo xamantene ne dafa nekk dynamique de victoire nek ci confiance mbeur mo xamante ne dafa am sabar aussi lan nga koy diggal non ñun tiituñu loolu ragaluñu lolu man ragaluma lolu parce que Garga dafa bëgg combat bi. quatre heures quatre heures et demi moo ñuy woo cinq heures cinq heures et demi moo ñuy woo fajar moom moo ñuy woo mbër ayca boog ñu ne ayca ànd ak moom entraîné na ci bëri entraîné na ci xeex li ci des déggoo ma ne la yàlla suñu borom moo ci des yàlla ñu yàlla may ndam lafal ko cat ndax ñun xam nañ li mu liggéey waaw li mu liggéey doy nañu waaw. ñu bëri daan ne daan Moussa Ndoye foog maa ne ko safara est-ce que yow gis nga lool. combat bi en tout cas daal ñun pare nañ pare nañ ci xeex pare nañ ci bëre kenn du dem guerre nag di wane say arme waaw ci Papa Sow bii mu des ndax geste bu rafet la yàlla nag moo ma tiim ci télé laay waxee yàlla moo ma tiim dox na ba tàyyi pour Parcelles doon benn moog per ba chaque jour dañ ma daan woo téléphone yëpp pour ñu dajale booy bi parce que ñun li ñu dese ci làmb daanaka bareetul mais booy yi nekk Parcelles dañ leen war a encadrer ndax fii lu nekk ku mën dafee génn muy roi muy lu nekk mais dañoo bëgg pour ñu waxtaan pour ñu pour ñu waxtaan ak yi ñu rassembler Parcelles ñu jàppale ñu ma nga xamante ne li ñu bëgg ci Parcelles yëpp dinañ ko def vraiment. di ñaanal Modou Lo tamit combat bi mu jëm yalla nako ci yalla suñu borom may ndam. ñu lay jaay ñu nek le grand champion Papa Sow mbeur ñi lay ziar. waaw so way ñi lay fay di nuyu mbokk internautes yi lay serve yëpp quoi. lan mo waral teewaay bi tay wa suñu la xewle rek ñu ñëw di ko ñëwal di wan ni moom ñu ci ginaam quoi diko ñaanal ndam aussi ha ah. tay bi nga ñëw également gis mbolo ma ni mel donc parcelle ñu génne ban liggéey nga ci am. wa loolu da naan ñu quoi ndax ñun bon ko xamné wa parcel do bëgg seen ay dom aussi ha ah, lo si mën dégg ku ci xewle ku lay ñëw taxaw quoi muy ngeen am combat capital boo leen dégmal dimanche muy bëre mbër bu nekk si confiance mbër bu agressif lan nga koy digal. waaw loolu leen wax naa mooy waxoon laay waxaat rek ñu ngi si bés bu bés waar bés mag nag xam ne Moussa ko xool xam ne champion la mais Garga dem ba ko di ko wax na ànd tey yóbbu bëre ñaan aussi yàlla ko yàlla may ndam quoi. observateur yu bëri ak amateur daan daan Moussa Ndoye day war a mu andi ko ah, wax la rek loolu ay li mu entraîné te mu dal ko si biiram denc ko waaw mbër bu loolu weesu ñu dégg sa diggante ak ku ci mel ne ak uh, guy gi sa diggante ak Sa Thiès combat yooyu la moo tax àndul waaw ñun ñu ngi nii di xaar rek mais promoteur ku ne xam ne lamb ji dafa sooxe quoi waaw ngi liggéey di xaar quoi waaw ñu ngi góorgóorlu quoi ñu lay sant baax di la bi ñu ngi sant suñu ñaari waajur ñu nuyu waa parcelle yëpp 1 ba 26 di jégaluwaat ci dérangement bi parce que ku ne xam na ne ni coono la sant ñi fi teew ñëpp gis nañ ne affaire bi jaxasoo mais seen xër ak seen bëgg guñ ma bëgg ak namu gu ñu namm lamb ak am lu ñu namm parcelle moo waral li waaw ñu ngi leen ci masso bu baax a baax a baax. ngay génn sa kër fan sa club bi ñew taxaw sa buntu kër xaar la li ñu doon wax moy wa parcel yow lañuy xaar lolu sas la wala waaw sama yaram dafa daw tay parce que gis nga ko dama genn yaakar na ma dugg oto ñu na ma ay sareet lañ ma yeglo boy genn ne ma ni lay demee te ñom luñ bëgg ñu lolu lañuy def waaw suba ba lekku ñu nanu ñu naanuñu ñu gis nga vraiment xol set na ko quoi. moom waa parcelle yow la ñuy xaar ndax ku nekk xam na ne waa parcelle instant bi neex la wuñu ñu fi bëri yëpp dañoo daanu depuis combat Modou Lo ak Balla Gaye numéro 2 kon loolu tamit ba léegi sas boobu noonu Garga Mbossé est-ce que mën na ci génne waa parcelle. làmb noonu la rek day neex suba mu naqari bu la 28 yàlla na neex. teewaayu Papa mu mel ne gën ngeen gisee ci lu weer ñun loo xamante ne xam nañ ko ñun ñu yor suñu micro ak suñu caméra teewaayam lan la la def ak góor a soog. waaw mbégte bu na ñi la teewaay Papa bent bett fii mais Papa Sow amul lu mu mës a xewle te ñëwul teewaayam am na ñu muy bent fii parce que miinuñu ko ci ay open press wala yooyu mais lu mës a xew sama kër kenn du ko fa jiitu te day yëkkati téléphone am di ma woo mook Moussa Dioum mu ngi xamante ni mooy sama mag man Moussa Dioum mooy sama mag taxaw na ma fépp Moussa Dioum taxaw na ma fépp sama mag la sant naa ko gërëm naa ko mboolem mbëru parcelle bàyyiwuma kenn 1 ba 26 ku ñëw ku ñëwul parce que yite dafa bari am na loo xam ne kenn ci balaame ne temps amul ku ñëwul xam naa ne sa xol a ngi fi kontaan si ñëpp ñu dem ci at waaw loolu min ngeen ko avancement bi politicien la léegi amul jot ñu ñëw ci adversaire bi uh-huh. balaa ñu lay wax dara lu wax làkk bi mu la làkk rek alaaj ca dara ma ne ko jegee diit luy alaaj ca dara ak lan mooy jegee diit xaw ma luy lool de mais jegee diit bu ma daanee incha allah la vingt-huit dinaa ko leeral laaj naa ko mu ne loolu mooy amul ragal de waaw bu man man man mi wax dinaa leeral sama incha allah wax naa ko dem ni ko da yow yaa waxoon ni da doon bëri ak lagrose mbër buy miir mënu koo daan yow nga ñëw daan lagrose avec la manière léegi nag nee na lagrose lonkoom la yow la ci bëgg a teg bu la daanee ba pare nekk sa xarit. waaw géwél bu rëbbee ci xare lu mu jiin xeeb ko. mënewuma ay teesante kii wax na lii kii wax na lii bëgguma loolu sax bëgguma ko yàlla xam na ko mais day toll foo xamante ni weddi tuuma du doon ragal ñëpp gis nañ combat boobu ni mu demee. jàll bi ngay wax nii. moo ko waaw ak sama diggante ak Lac Rose ñëpp gis nañu nga jël ko te moom nee na ne xaalis moo tax ma jël ko dama ne année balance moo tax ma jël ko ndax laa ma ji amul xaalis aw ma ci bu dul woon ak euh, Lat Diop ak le ministre Aly Ngouille Ndiaye ak ñu mel ni ñoom Néné Tall Amadou Ba ñoom Moussa Sy maire ay na Sow Diawara ñoom kilifa yu baax fi ne kon lu jigéen waaw Moussa euh, Moussa Ndoye moom vraiment fi ne nii li ñu doon wax yëpp defe naa jeex kuy wax a mën a noppi da xaar bis ngay bëre ak moom mënu la nawloowu la ci xeex bi nawloowu la ci bëre bi eh. bu lay garab ban taxawaay la war tontu naa si moom nawloowu ma ci xeex moom mosul dóor mu daanu amul kaaw xeexkat bu amul kaaw dóor na fi mbër bañ nangu ko ci ay loxo waaw mais mbër mu feebar mbër bu feebar yow bi ngay bëri ah yëngu ma ko de da ko dafa feebaroon non xam nga tey mooy li ma rek am na loo xam buñ koy wax day indi ay wiiri wiiri daal daal complication wax na wax naa li wax dégg naa ko li ma wax moom dégg na ko n'est-ce pas bu la vingt allah yàlla ma yàlla point ah ba lu ma koy wax leneen xam boo déparé bëgg ko la sànni xeer nga wàcc fay doo yegg am de baal bàyyi kaag wax ji rek. Thiandoum loo koy laaj. mbër ziar naa la amateur ak observateur yu bëri dañu daan Moussa Ndoye foog nga am ndam nee na nga agressif ci combat bi combat bi agressif la laaj arbitre siffle nga dox ci kaw adversaire ku wax loolu nee na observateur yu bëri ñoo moom bu match amee ñëpp ay coach la ñu doon bu lamb amee ñëpp ay coach la ñu doon man li may du wa mbedd bi ñoo koy wax dëgg la bu ki dañ ko laaj dëgg mënu ñu ko waxee dëgg nañu wax inshallah allah dégg ko mu na daf ko dàq mu daw te yow mënoo mucc ci door mu daan yalla nañ si yàlla musal yalla nañ si yàlla musal waaw. foo tollu woon tey ñuy bés boo xamante ne bii bés bu rëy la Moussa Ndoye préparé ànd ak ay mbokk yow nga préparé ànd ak say mbokk moom mu wax nii combat bii combat yu ñu changé àdduna bii moo ñu gën a jàll léegi yow wax boobu wax noonu lan nga ko waaw moo yey nag parce que def na ma fu ne daaw daawaati jéeg ba ren loolu yëpp da nga ko nar a bëriwaale. mais làmb la rek man li may bëriwaale dëgg dëgg dëgg su ma fenul mooy lii nga gis nii. mais kër combat bi lan laaj combat bi lan laaj. am na len lu may bëriwaale rek mooy lii wax dara dérangé wu ci. non ay waxu adversaire yàgg naa ci man du ma gën si làmb bëri naa ay gën a coriace Moussa Ndoye. combat bi lan la laaj. mu laaj mooy daan yàlla nañ daan. noo ko bëggee xeex wala bëre. non man moom ku xam-xam ne man làmb ju ma ñàkk sax daanaka xeex ma ko yàqaloo. est que bii da nga xeex gars yi woo Garga mooy si xeex mooy woo naan si naan soow. mais ñu bëri tamit nee nañ boo xeexul doo daan. waaw yàlla nañ daan rek ak nuñ daanee baax na yàlla nañ yàlla may ndox. la amoo confiance balaa caa ma toog man li ma bëree si làmb ak adversaire su ma demee ba bëreeg Moussa Ndoye du ma teg suuf war lu xew adversaire la mbër la dama koy respecté parce que gis naa lu muy mais athlète am de su ma amoon lu ma gënal lu ma bëreeg moom ma amoon lu ma gënal ma bëreeg moom côté côté mo ñaan yàlla rek Iba Mar Diop ngeen jëm bi Garga ak say ndax dinañ teel a jóg ndax gis nañ daaw combat ak Lac Rose deux heures tëj nañ bi moom mu feesal stade bi est-ce que say supporters di nga leen wax ñu teel a